situation bi ñu nekk dañu sentir li nga xam ni mooy euh, ñàkk dal wala boog xat-xatu dund la ñuy sentir yéguñu dund goo xamante ni maanaam dafa dafa souple dund gu confortable dund goo xam ni yaa ngi ci nekk mi da naan ah, Ba'da auzu billahi mina shaytani rajim alhamdulillahi rabbil alamin chers internautes chers chers abonnés je vous dis asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, tey nag ñu fas yéene woon ñëw rek ci benn sujet bu am importance nga xam ni sujet la boo xam ni mun na nekk tabou mun na nekk polémique waaye it sujet la boo xamante ni tamit ñu bari duñ koy bàyyi xel mooy euh, est-ce que ñun en tant que doomu aadama dinañ toog di méditer di xalaat. ci xéewal yi nga xam ni yàlla mu ñu koy may est-ce que balaa dara di xew sax nangu nañ ko ndax ñu bari dañuy ñaan xéewal waaye est-ce que pare nañ pour recevoir ko est-ce que nangu nañu sax am xéewal dinañ leen indil nag question yi ngeen di poser yépp d'habitude yi ngeen may poser directement wala indirectement wala question yi nga xam ne dama koy dégg sax te fekk na kenn posé wu ma ko ba tax na question yooyu dinañ ci mën a répondre ci lépp loo xam ne jëm na ci xéewal yeeg alal ak xaalis ak lépp loo xam ne rek macha allah dafay concerner suñu dund mën a jëm kanam mën am abondance ndaxte dañuy gis ni tabu la problème la ndax ku nekk rek ak na ko digg ak na ko déggee. ndax ñu bari bu ñu nee xéewal rek xaalis lañuy ñuy ndax jàpp nañ ni xéewal xaalis rek la war a mën a révéler et pourtant non xéewal dafa gën a yaatu loolu dafa gën a yaatu am amu xaalis wala am amu. ndax bu ñu xoolee li nga xamante ni par exemple mooy jàmm xéewal la. bëgg mbëggeel gi nga xam ne moom ngay bëgg nit ñi di ko bëgg sa bopp di ko bëgg lépp loo xam ne dafay dund xéewal la wér gi yaram xéewal la te xam naa ne yéen ñii yéen a ma ko gën a xam xam xéewal la tey taar gi nga xamante ni tey yaa ngi koy ut wala yaa ngi koy dund wala yaa ngi koy jëfe ci lépp looy def xéewal la tey wërsëgu bëgg a dund rek am looy dundee ne que dëkk bi nga dëkk am na marché nga mën dem dugg xéewal la ndax gis nañ fi réew yu bari yoo xam ne ñu ngi ci conflit ba nga xam ni même bu ñu bëggee même bu ñu amee xaalis bëgg a dem duggi gisuñu lekk bu ñuy jënd ndaxte frontière yi tëj na amuñu fu ñuy euh, jaayee seen xaalis kon loolu ci xéewal la tey bëgg nelaw tëdd nelaw xéewal la ndax am na ñoo xam ne pour ñu nelaw dañuy naan garab tey euh, bëri na li nga xam ne daal buñ ci duggee rek macha allah dinañ gis ni xéewal yi ñu yàlla may jot nañu taxaw waxtaan ci. tey jot bi nga xamante ni nit ñi koo waxal mu ne la awma jot am jot ñu ci bari dañ naan ah am jot baaxul waaye am jot am na fu ñu nekkee xéewal ndax bu sa temps barkeelee di nga am jotu def li nga war a def ak li nga bëgg a def ndax am na ñi nga xam ne pourtant defuñu dara waaye amuñu jot kon bu ñu xoolee am na ñoo xam dañu toog tegle seen tànk mais dañ naan amuñu jot kon lan mooy am jot am jot day delluwaat rek ci li nga planifier ci sa journée wala li nga planifier ci sa semaine nga arrivé def ko sans stress ni pression di manière bu ànd ak dal te doo ci sonn te gis nga ni kat réussir nga atteindre ko na nga ko war a defee te nekkoo ci pression boo xam ne da ngay gis ni sa temps dafay xat dafay gàtt parce que tey sa sa notion euh, wala boog sa rapport ak temps bi ak heure bi bu baaxul rek mooy da nga am pauvreté ci sa wàllu temps. ndax temps buñ ko waxee muy heure bi dafa am solo ci dundu jullit bi ndax yàlla suñu borom de bàyyiw ko noonu rek mu jàll mu nekk lu amul importance ndax ku ne gis na suratul asr nga xam ne yàlla suñu borom mu ngi ciy wax li nga xam ne mooy notion du temps su rapport xam ne doomu aadama yu ci bëri temps boobu daf leen a sànq ndax duñ ko bàyyi xel nekk nag loo xam ne danger gënu ko. tey ba tey xéewal la le fait nga am réussite ci sa dund. réussite nag ñu ko waxee ñu bari dañ koy lié ak alal wala ñu di ko lié ak dund bu euh, sotti et pourtant réussite ku nekk ak na ko déggee ku nekk ak la nga jàppee ni mooy réussite mais ñu ci bari buñ nekkee jeune tollu seen digg àdduna naan dama bëgg a réussir bëgg a réussir boobu liñ ciy déggee ñoom rek mooy am liggéey ba stable mën a am seen vie bu confortable loolu mooy seen réussite et pourtant non. ba tey ñu gis nit ñoo xamante ni. ñoom jàpp nañu ñoom la réussite n'est pas fait ñoom duñu réussir ndax réussit moom yàlla sàkk ko pour ñoom ba tax na ñoom duñ ci bàyyi xel que ni euh, réussite boo ko créer boo ko bëggee rek moom mën na nekk waaye dañuy sax mujjee saboter seen bopp wala sax duñ ko gëm ni lu mën a nekk la. tey nañu wax ci li nga xamante ni mooy xéewal yi nga xamante ni moom lañu yàlla defal ci àddina bi am na ñi nga xamante ni situation bi ñu nekk. dañu sentir li nga xam ni mooy euh, ñàkk dal wala boog xat-xatu dund la ñuy sentir yéeguñu dund goo xamante ni maanaam dafa dafa souple dund gu confortable dund goo xam ni yaa ngi ci nekk mi da nga naan ah man daal alhamdulilah ala kulli xaal parce que su ma xoolee tamit damay gis ni maa ngi nekk à l'aise ak sama dund. kon ku nekk poser sa bopp question boobu nga xool que ça soit muy aspect. relationnel matériel physique professionnel sa li ngay dund moment bi nga toll est-ce que sa dund lu confortable la wala loo bëgg a la ndax boo posé sa bopp question ah man de sama dund kii dafa inconfortable waaye beneen question bi ci teg mooy ndax bëgg naa ko changer wala ndax mën naa koo changer ak tamit ndax changer ko mën na nekk kon lépp tamit day delluwaat ci yow ba tey ñu ñëwaat ci xéewal li ñu yàlla may nañu wax ci li nga xam ne mooy sages yàlla di mu ngi wax ci alxuraan nee na sagesse xéewal bu ngànd ngànd la xéewal bu mag la képp kum ko may rek xamal ne jox na la xéewal te jamono ji dañu gis ni rares sont les personnes yi nga xam ne yàlla may na leen sages ndax sages doo ko mën a acquérir nag lu dul ci xam-xam ak épreuve jaar-jaar ak mën a am li nga xam ne mooy bienveillance di xool di seetlu di analyser ci li nga dund li nga jaar waaye it xam-xam bi nga xamante ni moom la yàlla teg ci kaw suuf nga xam ne moo ñuy jëriñ suñu àddina suñu àllaaxira muy xam-xamu diine ndax bu la ci yàlla mayee sagesse mooy yàlla may na la ndax yàlla ku mu namm lay déggloo diineem ji te bokk na ci xadis bi yonent bi sa salaam waxoon ni képp ku yàlla namm dugg àjjana daf lay may nga dégg sa diine man loolu rek doy na ndax ñu bari jàng ñu ngi jàng diine di ko jàngale mais dégguñu ko. waa ci sa dund ba tey ma posé la beneen question mbëggeel baatu mbëggeel boo ko déggee ban relation nga am ak moom xalaat nga ni sa dund yaa ngi dund mbëggeel bu ma waxee question bi nag sénégalais yépp ci mbëggeel sentimental boo xamante ni mooy l'amour entre ñoom ak ki ñu nopp et pourtant mbëggeel dafa gën a yaatu loolu. ndax bi nga juddoo sa yaay ak sa papa ñoo fi nekk et pourtant mbëggeel moom lañ day bëgg moom lañ lay teertoo yow tamit ci màgg gi ngay màgg mbëggeel googu danga koy développer envers say waajur kon bu ñu waxee mbëggeel dafa yaatu ndax mën nañ ne l'amour universel mooy lépp loo xam ne rek lu yàlla sàkk la nga bëgg ko ndax yàllaa ko sàkk waaye ba tey mu am amour boo xamante ni lu ñuy travailler la lu ñuy liggéey la lu ñuy dund la lu ñuy acquérir la kon lan mooy sa rapport ak mbëggeel kon yàkkaar nga ni sa relation ak ak la nga xam ne mooy amour mooy mbëggeel nit bu nay nga ci joxe mbëggeel wala nit bu généreux nga ci joxe mbëggeel encore une fois mbëggeel universel lay wax envers tout le monde donc lan nga xalaat ci sa rapport ak nit ñi ak bàyyima yi ak garab yi ak lépp lu yàlla sàkk est-ce que nit nga boo xamante ni dangay sentir amour affection rahma ci sa xol walla mbir la bu absent ci sa dund wala danga bokk ci nit ñi nga xam ne dañ koy laaj et pourtant duñ ko joxe lan mooy sa rapport ak mbégte bànneex ndax nit nga boo xam ne dangay bég de temps en temps wala yow occasion bu nekk ci sa journée occasion la pour nga bég occasion la pour nga am reconnaissance sa borom occasion la ngir nga sentir xéewalu yàlla occasion la ngir nga kontaan wala da bokk ci nit ñi nga xam ni doo sentir joie ci sa dund de temps en temps rek ngay sentir joie mais doo nit bu joyeux donc sa rapport ak la joie lan la ay question laa leen di poser te da ngeen ko war a répondre nañ wax ci li nga xam ne tamit mooy taar ndax yàlla suñu borom defal ni dafa taaru te dafa bëgg lépp lu taaru ndaxte tamit yàlla dafa sàkk àddina bi mu mu taaru àdduna bi rafet tey bu ñu seetloo yàlla suñu borom àdduna bi lépp lu mu sàkk dafa taaru en te yàlla daf ñuy wax ci sootul mulk nu mu sàkkee asamaan si décoré ko ak ay biddéew yoo xam ne gudd bu jotee ay làmp lay doon di tàq di leeral àddina bi waaye bu ñu xoolee bëccëg ñu xool lépp loo xam ne tey mooy fore yi di xool li nga xamante ni tamit mooy àll yi di xool géej yi dex yi tey bu ñu la wanee atmosphère environnement végétal bi nga xam ne moom la yàlla sàq ci es stupéfait yàlla lépp lu mu sàq dafa taaru kon lam mooy sarapor ak taar ndax lépp looy def di di nga ko rafetal wala ndax yow da ngay def rekk pour def wala yow booy def dara doo ci xaar di ci def li nga xam ne mooy taar mooy rafet te buñ nee taaral dañ koy commencé ci sa jëf sa jëflante sa ni ngay solo waaw ni ngay mën nañ ne jëflanteeg nit ñi ci jëfin bu rafet ni ngay defaree sa kër danga koy décorer wala danga koy nettoyer ci lépp li nga xam ni yaa ngi koy def ndax dinga ci bàyyi empreinte boo xam ne moom lañuy woowee taar ndax yàlla environnement bi mu ñu teg muy àddina dafa ko taaral ba mu taaru boole kook yonent bi sa alayhi sant ñu en tant que jullit lépp lu ñuy def dañ ko war a taaral dañ ko war a rafetal ndax obligation la fan nga tollu ak taar yi nga xamante ni moom la yàlla wàcce ci àddina bi sas ñu en tànk que ñu taxawee ko di taaral di taaru ci lépp loo xam ne mooy suñu kàddu suñu jëflante suñu wax suñu solu suñu defar suñu environnement suñu jënd suñu jaay en li ñuy wax la beauté universelle fan lañ ci toll. waaw sa wér-gu-yaram nag foo ci toll. ndax nit nga boo xamante ne dangay toppatoo sa wér gi yaram est-ce que ku la gis dina la ñee ci sa wér-gu-yaram est-ce que am nga bilan boo xam ne yow di nga am certitude xam ne ah man je suis en bonne santé wala soucié woo sa santé intéressé wala sax lijjanti ko tànk tëddoo daal ba naan mu ngi deeg mu ngi dund yow hôpital xamoo ko doo prévenir amoo prévention da ngay dund rek pour dund kon foo toll ci sa wér-gu-yaram lan mooy sa digganteeg xaalis ndax danga bokk ci nit ñi nga xamante ne seen digganteeg xaalis sañwul fu ñu leen fekk dañuy ragal ñàkk wala du ñu permettre seen bopp am wala pour ñoom ñi am xaalis dañoo bëgg lu yomb wala ay tappalekat lañ wala xaalis bi lewul wala ñi bëgg ñi nga xam ne amuñu xaalis dañoo liggéeyul moo tax amuñu xaalis lan mooy sa xalaatin ci xaalis ndax am na ñi nga xam ne jàpp nañ ni ñi ñàkk dañoo amul jom wala ñi amul dañoo bëggul liggéey am na ñi nga xam ne jàpp nañ ñi tamit ñi am dañoo tappale ba am ndax xëy na bu ñu defoon ñoom ni ñëw ñu def dinañ am kon ñi am seen am légitimul yow lan mooy philosophie ak xalaatin pensée bi nga am ci xaalis. wala sax danga bokk ci nit ñi nga xam ne danga naan ah man de xéewal yi yàlla sàq ci kaw suuf man mii jullit bi maa ci jiitu. kon ceci dit que lépp lu ma yàlla may rek dama ko mérito comme dama ko mérito nag dinaa sabablu te lu ma am rek dama koy sante yàlla te xam ne macha allah yàlla mën na maa may lu ko ëpp. tey su ma la doon may ma ne la ah ñëwal sama kër par exemple damay maye meew wala damay maye euh, soow wala damay maye suukar wala damay maye ceeb tey boo doon ñëw lan ngay indaale ci sa ci sa loxo ndax booy ñëw. normalement dama la naan indaaleel foo koy def da ngay indi potu ndaa wala siwo wala paan wala barigo wax ma lan ngay indaale ndax li ngay indaale dina déterminer sa rapport ak li nga permettre sa bopp jël ko ci li nga xam ne moom lañ lay mbay kon siwo walla paan walla li nga xam ne mooy contenu bi ngay indi. ngir jël si li nga xam ne mooy li ma la jox loolu mooy déterminer sa conscience ndax sa conscience li nga mën a jël wala boog li nga pare pour jël dafay wane rek sa rapport ak xéewalu yàlla yi kon boo koy jël ndax danga koy cof ndax danga koy tibb wala dangay xam ni mérito nga lépp war nga ko mën a jël kon ceci dit que ku nekk ci ñun bu mu juddoo am nay croyances yuñ ko transmettre ñu di ko woowee les croyances limitantes mën na nekk seen sa gëm-gëmu yaay wala sa gëm-gëmu papa wala seen gëm-gëm ñoom ñaar ñëpp mu nekk ay gëm-gëm yoo xamante ni tey ak koo mën a doom ak âge boo mën a am ak race boo mën a bokk du tee bu ko bu ancré woo sa bopp mën na la limité ci sa àddina limitation bu doy waat sax waaye xamal ni. sa conscience boobu yàlla may na la capacité pour ñu transformer ko changer ko intégrer intégrer ci ay mbir des désintégrer ci aussi ay mbir. ndax tey am nga possibilité changer sa subconscient changer say croyance ngir mën a gëm ndax yow xéewal yi nga fekk ci àddina bi loo mérité la wala loo mérité wul la wala pare nga ngir recevoir ko. kon lépp day laaj préparation mentale ndax tey sa programmation mentale boobu moo lay permettre à nga changer say ngëm-ngëm ci rapport bi nga am ak xéewal yi nga xam ne moom la yàlla def ci àddina bi te tey bu ñu waxee xéewal wala ñu ne wërsëg wala ñu ne prospérité du rekk xaalis du rekk li ngay am déedéet ndax bu doon loolu la kon dana gàtt trop. ndax nit ñu ci bari. duñu mën a gis mukk li tax wu méritoowuñu wala bokk euh, mënuñoo am lii ndax duñu mën a comprendre lan moo tax ñu defay effort duñu am résultat ndax la plupart ci ñun dañuy concentré wu rek ci lu ñu amul wala ci lu ñu ñàkk wala ci lu ñu amagul fàtte déjà li nga xam ni am nañ ko ba pare tamit bokk ci xéewal yi wala boog nga gis ñenn ñi nga xam ni bu ñu xasee ba am dara ba pare wala boog bu ma yeboo ñun ñëpp yaa ngi dàqi loo amagul yaa ngi ci désir bëgg naa lii si quelques semaine bëgg naa laa d'ici quelques mois dinaa ut lii dinaa def lii dinaa tout le temps ñu ngi ci ay projet ñu ngi ci ay projection ñu ngi ci ay euh, désir yoo xamante ni di désir loo xam ne amaguñ ko et que di fàtte sax li nga xam ne am nañ ko ba pare wala di fàtte sax lijjanti wala xool naka lañ koy mën a sàmmee ndaxte nit ki jàmbat bi ngay jàmbat c'est comme si euh, dangay jàmbat pour wane ni pareegoo sax ngir jot xéewal bi nga xam ne moom la la yàlla di jox ndaxte bu ñu xoolee alxuraan yàlla suñu borom li mu wax dafa leer pourtant dañ ko fi ni ñuq dem di def leneen yàlla nee sant leen ma ma doole leen ñaan leen ma ma may leen mais ñun duñu ñaan mais dañuy jàmbat duñu sant mais dañuy jàmbat tout le temps ñu ngi nekk ci ah aw ma lii su ma amoon lii def dinaa def lii lu tax aw ma lii dinaa ba sonn maanaam dañuy teel a sonn teel a xàddi teel a yokki ngir accuser yàlla parce que yàlla waxam du dañ yàlla bu nee ñaan leen ma may may leen mais boo dëkkee ñaan tôt ou yàlla daf lay may yàlla bu la mayul léegi may la ci kanam wala may ko sa njaboot wala may ko sa descendance mais yàlla dalay may wala may la ko fële bu la ko mayul fii mais ñun. dañu yàqamti dañu gaaw a xàddi yàlla suñu borom moo ne sant leen ma dolli leen kon bu ñuy sant yàlla ci lan lañ koy sant ci li ñu am ba pare waaw léegi bu ñu bàyyee li ñu am ba pare topp di tracé li ñu amagul nan la ñuy sant yàlla buñ ko santee tamit sant làmmiñ la may eggul ci xol ndax sant gi ànd ak ngërëm sant bi ñuy jëlee ci xol daf lay maanaam daf lay protéger daf lay teggi sa xel ci ngay concentré wu ci li nga ñàkk mais da ngay wu ci li nga am ba fàtte li nga ñàkk looloo waral yàlla di la doolil parce que gis na ni yow da nga reconnaissant te yaa ngi gis xewal yu mu lay jox kon du coup gisatoo sax loo amul da ngay doylu mais boo concentré woo ci li nga ñàkk li nga amul li nga amagul li nga bëgg a am sa dund dafay xat dafay metti dafay jaxasoo parce que tout le temps yaa ngi tracé li nga xam ne mënoo koo jot wala mënagoo koo jot et que temps frustré et que tu auras tout le temps mal te bu boobaa ingratitude da lay dugg te bu la ingratitude duggee damay ragal comme ni yàlla waxee xéewal yi du ñëw waaye yàlla daf la koy privé daf la koy xañ say mbir di dëgër doo comprendre et pourtant lépp dafa leer ba pare ñun ñoo ko nanguwul jël ñoo ko nanguwul gëm ñoo ko nanguwul appliquer. il faut que ñu xam ne yàlla suñu borom àddina bi lépp lu mu fi sàkk mu dagan ñun ñoo ko moom nit ñi yàlla dafa sàkk nit ba pare sàkkal ko lépp lu nekk ci kaw suuf kan la ko sàkkal benn mbindeef muy doomu aadama waaw kon doomu aadama moom bu demee ba li ko yàlla sàkkal munu cee jot mooy problème am na parce que ba tey xamul grandeur yàlla bi ko sàq waaye xamul it capacité moom en tant que être humain ngir mën a jot ci li nga xamante ni mooy xéewalu yàlla yi kon ñu gis nii ñu gis nii yàlla suñu boroom luñ ko ñaan daf ñu koy may ñun la fi nekkal luñ ko ñaan ci xéewalam yi daf koy saawaan baawaanal ko suñu dund tànk mu ngi doon di gën ci ñun ndax lii léeg yàlla may la naqar sax ngay jàmbat te pourtant naqar googu ci moment boobu moo gën ci yow de ndax lu bari la ay fegal mais doo ko gis ndax ñun bët maanaam du ñu gis au delà de nos suñu yeux suñu bët yi lii muy gis nii apparence bi lañuy gis mais du duñu xool xoolu spirituel maanaam xool gu ànd ak diine duñu gis-gisu diine loola waral suñu gis daf ñuy tromper daf ñuy nax kon bu ñu xoolee ni yàlla lépp lu mu wàccee ci suuf si ñun ñoo ko moom xéewal gi yaatu gi muy yaatu ñun ñoo ko moom kon dinañ changer doxalin te dinañu changer raisonnement ak xalaatin waaye ba tey ma di leen fàttali di fàttali sama bopp que ni àddina nag booy xool. amul secret la ñuy faral di wax waaye ba tey dama naan code secret la rek ndax li ngay joxe moom ngay am mhm. li ngay joxe lu ci ëpp moom ngay faral di am li ngay done mooy retourner si yow tey boo xëyee di romb ay nit di reetaan sax di muuñ bu yàggee nit ñi dañ lay ree xamuñu sax yow li ngay ree lu mu doon loolu la ñuy wax li nga xamante ni mooy les neurones miroir mooy nit ñi des bu ñu la gisee nga nekk en bonne humeur. di kaf di ree dañ leen koy paas dañ lay copier ndax loolu ñun ñëpp ko am ndax dañoo may ay neurones miroir bu ñu gisee nit nekk ci benn état mën nañu yóbbaale ci état am des fois nga romb nit dangaa xëy sa kër génn kontaan nga dajeek nit mu tël la mer xool la ci patu la wax la wax ju bon ci si rek nga répondre ko sa xol bax moom wàll na la paas na lay émotion am say neurones miroir copier na ay ay neurones yam ngeen même état gis ngeen kon cela veut dire bu ñu bàyyi xel suñu bopp dañuy gis ni bu ñu nee nit ki li ngay joxe rek loolu ngay am wala doo doo doo joxe loo amul wax ju yaatu la mu nekk ñaari wax yuy dem bu nekk ci sens inverse bi mais ñu gis ni ay wax wax la boo xamante ni lu jot a euh, bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la ndax tey dañuy wax ni kuy maye du ñàkk waaw <laughs> kuy joxe du ñàkk ndax kiy joxe dañ koy jox ndax àdduna bi lu luwaay yi noonu la tëddee. tey ki nga xamante ni dafay jóg di taxaw di dimbali di jàppale képp ku mu gis ni mën na la dimbali kooku service boobu mu nekkal boppam nekkal ci yàlla waaye boppam sax la ci gën a nekkal ndax moom mooy récolter fruit yi kon moom rek moo ci jëriñu tey nit ki buñ la nee baaxal nga jàpp ni boo baaxee da nga defal ñeneen ñi faveur defaloo kenn faveur sa bopp rek nga defal faveur ndax olof bu nee lu waaye def boppam te muy wax yu mooy tey boo baaxee ak nit ñi dañ la koy retourner di nga dégg nag ku ci nekk ci wet ganaan nit ñi dañ leen defal lu baax ñu defal lu bon foo gisee nit buy wax loolu mooy la mu doon def ci lu baax defu ko woon te yàlla tax daf ko defoon am ci ay calcul ak ay attente ay calculum faussé ndax yàlla kenn du ko njuuy yàlla moo la sàq moo la jox intelligence kon doo ko njuuy tey boo defalee nit ba pare di ci xaar nit kooku tagg la wala mu gërëm la wala mu yëkkati la wala mu am lu mu la jox wala mu am lu mu la def doo ko ca am ndax yàlla daf ko ci alxuraan alxuraan mooy la ut ca la ngay def loolu da nga cay am la ngay def boo ci ut tagg daa ca am tagg boo ci ut ngërëm daa ca am ngërëm boo ci ut lenn xas sa nga cay am boo paree ngay toog di wax ni waaw def naa lii et pourtant lii moo ma dal mbokk yi yàlla waxam du dañ loolu mooy yaa ngi accusé yàlla que ni lu mu wax ne boo defee lu baax am lu baax loolu amul et pourtant non yow yaa nekkul ci dëgg parce que yàlla li mu wax du dañ yàlla bu la nee boo defee lu baax am lu baax boo defee lu baax te yàlla tax te xaaroo ci retour wallahi lazim yàlla daf la koy delloo. kon mënuñu prétendre que ni dañu def lu baax ba pare di am lu bon loolu képp ku koy wax na dem xoolaat jëfam ja jëf lu tax mu koy def ndax intention rek la yàlla di fay sa jëf lu mu ngande ngande ngande intéressé wul yàlla li ko intéressé mooy intention bu nekk ci ginnaaw ndax jëf tuuti loolu intention ba ngande yàlla fay intention ba kon yàlla intention lay fay kon ratification ci ñenn ñi nga xam ne mën nañ ñëw ne ah man de pourtant def naa li def naa li et pourtant li lañ ma fay déedéet buñ ko gasee ba ci biir boo duggee ñun ba ci biir séance coaching dinañ la wan say erreur fan la nekk ba lii dal la kon rectification encore une fois day war ku nekk. ba tey tamit nga gis beneen xeetu nit bi nga xam ne dañ naan man lu ma bëgg ci àdduna dama koy am par dama koy foqati dama koy lijjanti bu jaree manipuler ma manipuler bu jaree nax ma nax bu jaree fen ma fen bu jaree tappale ma tappale waaye li ma bëgg dama koy am waaye ndax dañ naan kon lépp loo foqati ci dund gi dund gi foqati ko ci yow ceci dit yaa ngi def loolu tey inconsciemment nga jàpp ni danga am doole wala danga am loo ëppalee nit ñi danga leen a gën a muus wala danga leen a gën a am vision ba tax yow ngay defee noonu nga koy defee jàpp ni dara du ci dikk gëmal ni loolu nga foqati noonu bés dana jot ñu foqati ko ci yow tuddoo ci man dara kon lépp looy def rek na ànd ak sincérité ànd ak intention bu sell waaye te mu wóor te nga xam ne ni nga ko joxee noonu wala ni nga ko jëlee noonu la même chose noonu la koy dafay àttee ndax nit boo gëmul sa bopp gëmoo yàlla mi la sàkk en général dangay yàqamti say mbir dangay fàtte ni yàlla moo yor sa wërsëg boo bëggee dara au lieu nga rafetal ba jot ci mbaa nga ñaan yàlla sabablu sabablu bu honnête dangay foqarti wala dangay tappale wala dangay turiande wala dangay escroquerie wala dangay maguy wala dangay ger du n'importe quoi ngir lan parce que da nga yàqamti ba tax na nga foqati ci dund gi loo xamante ni moom moomoo ko kon gëmal ni yàlla dina la fay ba wis la kon nit ku am genre xalaatin bii gëmul yàlla gëmul boppam moom moom li mu bëgg daal bu tappalewul du ko am wala bu ko awalewul ci yoon bu mbuxum du ko am nit kooku nan lay yàlla di ko sambaxtalee ay xéewalam ci kawam du mën a nekk et pourtant lii dafa am am na nit ñoo xam ne jàpp nañu pour ñu am dara ci nit il faut que ñu nax ko wala il faut que ñu tappale wala il faut que ñu dóor ko wala il faut que liste bi gudd na yéen a ma ko gën a xam nit bi am boobu croyance boobu gëm-gëm ci xéewal yi yàlla sàq ci kaw suuf te mu sàq ko lu dul ngir ñun jaamam yi nit ki bu gëmee ni nii la mën a def pour jot ci kooku na xam ni xéewalu àddina bi du ci jot ndax méritoo ko ndax ni mu koy utee day wane ñàkk ngëm yàlla am il faut que ñu xam ne xéewalu yàlla gi ci univers bi yëpp la ko tasaare ca géej ga ak animaux yi fay dund ci suuf si animaux yi ñu mënul gis ci air bi animaux yi ñu mënul gis nga xam ne microscope rek a koy gis ci kaw asamaan si ak ñun ñi nga xam ne mën nañoo gisante kon yàlla suñu borom xéewalam dafa dépassé suñu ay capacité intellectuelle mënuñu koo xalaat ba di ko njort ba di ko calculer kon boo xoolee grandeur yàlla xam ni moom mooy allahu akbar waaye moom mooy wa huwa ala kulli shay'in hadir moo capable de tout kon am na ci loo xamante ni doo ko sax prétendre dangay faral di dégg nag ñu naan lii dina manqué lii dina manqué lii doyul lii amul pourtant si ndax doomu aadama bu mu duggee ci industrialisation ak reproduction massif ndax ragal ñàkk di préparer fii fukki at lu ñuy dundee lu ñuy lekk lu ñuy naan exploitation boo xamante ni dafa chimique day yàq envionnement bi yàq suuf si rey rey li nga xamante ni mooy garab yi ray animaux yi doomu aadama caxat-caxatee suuf nu mu ko neexee après muy xaar yàlla sëmbaxtal ci suuf si encore une fois xéewalam gëm naa ne boobaa du doon ci ñëpp day am juste ci nga xamante ni mën nañ cee jot te malheureusement dernièrement nii lañuy ñuy dundee et pourtant caxat-caxatee boobu ci ay niveau la rek ñi am doole niñ koy defee ak ñi nga xam ne amuñu doole te loolu la ñu gëm ak niñ koy defee waaye ku ci nekk jàppal ne rek yàlla dina la fay ba wis la ndax tey àddina gi ni mu tollu tey normalement xiif war woon am nit dee ndax xiif war woon am tey àddina bi du am ci xéewal ci lekk ci naan tey mën na dundal ñëpp ba mu des waaye dafa am ñoo xam ne dañ koo katafoo jël li nga xam ne mooy lenn ci xéewal yooyu ne ñoo ko bàyyi nit ñi ñuy ci xiif nga gis tey dëkk yu ci mel ni Occident dañuy duy seen supermarché ba mu fees fajar jaay ba une jot lépp luy ndugg ñu jël ko yebbi ko ca pôlu mbalit mi nga gis ay pauvres yu dugg ci biir pôlu mbalit mi di dindi ndugg yooyu di ko lekk et pourtant xanaa buñ ko jaayee woon sax cinquante centime nga gis ñoo xam dinañ ko ramas yóbbu seen kër togg ndax lu nit mën a consommer la waaye noonu lañ koy jëlee yóbbu ko ci pôle mbalit sànni ko muy nëpp te ay nit a ngi dee xiif ko loolu preuve rek la que ni ñun ad ñun doomu aadama yàlla daf ñu defal xéewal defal ñu abondance ba wëri ñu ñëw bëgg a saboter bi ba tax na tey ngay dégg ñu naan waa famine dina am nañu wàññi population mondiale bi nit ñi bu ñu jurati loolu yëpp ay tappale la rek ndax yàlla moom ni moom àddinaam dafa sàmmoonteeg boppam digganteeg boppam que ni àddina képp ku fi juddu yàlla moo lay wërsëgal te dana la jox la nga soxla ba keroog nga koy wuy ji kon am na loo xam du mission doomu aadama ñun dañuy sabablu rek waaye li ci des yëpp yàlla suñu borom moo ñu koy defal. ba tey ñu ñëwaat ci beneen feebar boo xam ne feebaru modernité la mooy bu ñu xoolee tey macha allah nit ñi dañu bëri ci àddina bi. tey ku juddu am nga yaay am nga papa léeg nga am mag am rakk am ay bàjjan am ay tante am ay entourage waaye bu ñu seetloo tey nit ñu ci bëri ce sont des personnes qui se sentent seules au monde wéet wéetaayu xol ndax lan ndax ku nekk danga nga bëgg dund ci sa luwaawu bopp dund ci ni nga ko gisee ci ni nga ko sentiree loolooy dund gu xat goo xam ne xajaloo ci ñeneen ba nga xam ne doo jéem a comprendre keneen bay comprendre sa bopp te mbir mi ni nga ko bëggee noonu lay doxe kon cela veut dire que dund en société dafay mujjee dem ba day mel ni luy mujjee raaf ndax tolérance amatul compréhension amatul ku nekk yaa ngi bëgg a teg sa loi bëgg a buur di bu mu nekkee ni mu la neexee dundee ni mu la neexee ngir soit disant que rek da nga libre ndax danga bëgg jàmm. tey bu ñu xoolee tey àddina bi oxygène bi ñuy nooyi xam nga kenn du ko xëccoog sa moroom <laughs> tey ku ne dangay toog ak sa moroom ngay nooyu oxygène may nooyu oxygène te duñ ci xeex duñ ci xëccoo waaye bu ñu seetloo ci beneen côté bi ay nit ñu ngi liggéeyante ñu ngi rayante ñu ngi defante du n'importe quoi pour lan pour seen wërsëg diw moo ma xañ sama wërsëg diw moo tax mënuma am succès diw moo tax mënuma arrivé diw moo ma liggéey diw moo ma nàngam et pourtant yàlla suñu borom jox nañu ay signes yu war a tax ñu xam ni loolu yépp dara amu ci ndax yàlla wan nañ ne xéewal gi moo ko yore ni mu ñu xéewalalee oxygène boo xam ne dangay nooyi may yi keneen di nooyi te duñ ko xëccoo te duñ ci reyante te kenn du ne nooyil aal ma ma yi noonu la ñu war a xamee ne suñu xéewal gi ku nekk quantité ba nga soxla yàlla daf la koy jox ba mu doy ba keroog ngay dee te kenn du ne sa morom aal ma sa wërsëg wala jox ma sa wërsëg wala nga jël sama wërsëgu moroom ku ne la ngay moom moom ngay lekk waaye tey bu ñu xoolee tey asamaan si ñu wër. kenn du ne sa moroom may ma ma xool asamaan si wala may ma ma xool weer bi wala xajal ma ci suuf si ma dox ndax xaju ma fi suuf si ni mu yaatoo ba ku nekk di doxe sa soxla guddeeg bëccëg suba ngoon te kenn du mbëkkante kenn kenn du buuxante kenn banaa nit ki tere nga ma jàll ñaari fan ak nii mënumaa jël sama yoon loolu lañu war a xamee ni yaay yàlla suñu borom lépp ma yaatu lépp ma rëy lépp ma infini infini ndax moom il est infini mu déterminé nag àddina bi ci li nga xam ne dafa éphémère mooy bés dana jot dana jeex waaye en attendant mu ñu fi defal dafa doy ba ëpp ba tuuru waaye ñun ñoo koy jéem a saboter pour limiter ko ngir créer ay xeex ay stress ay xuloo ay conflit ngir lan ngir nit ñi nekk dund ci peur dund ci terreur di fuqarñante di jafante parce que mënuñoo comprendre ne àddina bi fii mu toll ñun suñu jëm bopp ñooy créer musiba yi nga xam ne ñu ci la ñuy dund. ndax yàlla libéré nañu kon il faut que ñu nangu ne jarul ñuy xañante jarul ñuy defante jarul tamit ñuy xëccoo ak di liggéeyante te xam ne oxygène bi ñuy noyyi duñ ko xëccoo suñu wërsëg noonu lañ ciy jotee te duñ ko te waruñu koo xëccoo te duñ ko xëccoo ku gëm yàlla ba mu jeex yàlla wërsëgal la ba mu jeex te doo ko xëccoo te di nga dund ci xéewal gu kawe sa njort goo xamante ne dina la leer ni di nga ci am bu mën cee xaajog jaam yàlla yi kon lépp day delluwaat rek sa perception ak sa gëm-gëm ak sa niveau gëm yàlla yàlla puissance la mbokk yi yàlla amul yemuwaay te yàlla lépp lu mu sàkk da koy yaatal teg ko ci xéewalam waaye ñun ñoo nanguwul xam màggaayam xam ke moom il faut ñu meriti xéewal gi ñu yàlla di jox waaw waaye it il faut ñu accepté ko ndax tey nan ngay bëggee mérité xéewal gi la yàlla jox boo gëmul ni yow yàlla am na yàlla dafa woomal xéewal yi mu sàq sàq ko lu dul jaamam yi yow nga gëm ni tey amoo wërsëg ngay uti wërsëg ci maamam yow nga gëm ni tey boo demul ut xaw ma uh, wërsëg wala boo demul ut ñaan wala boo demul activé xaw ma lan ak lan boo demul def nangam ak sàngam doo am ba mu dugal ci bokkaale kooku mérité wërsëgu yàlla mérité woo ko yàlla bu la ko joxee xam nga ni daf la ko jox pour mbugal la mais joxu la ko pour teral la tey nga jàpp ni boo taqul sangu doo am wërsëg doo am alal doo am succès doo am li nga bëgg allahu akbar allahu akbar et pourtant yaa ngi noyyi oxygène yàlla seconde bu jot te boo toogoon trois minutes noyyi woo nga dem yowmal xiyaam et pourtant ba tey laajte lu tax noyyi gi may xëccoo ma ko kenn te yàlla mu ma koy jox gratuitement mais bàyyiwoo woo sa xel loolu mais tout le temps yaa ngi jéem di dem ci maaman defal ma nangamal ma doomu aadama comme yow nga di ko laaj sa wërsëg. wala doomu aadama comme yow ngay tàll sa loxo nee nga yaa ci moom nga yaakaar sa wërsëg te amaana ma nga ca bàmmeel fàtte nañ ko yow nga bëgg a jël sa wërsëg di ko teg ci doomu aadama te yaa ngi dund yaa ngi dox yaa ngi xoole te loolu yëpp xooloo xalaatoo ne ki la jox capacité yii ki la jox intelligence bii ki la jox nga mën a gis ki la jox nga mën a wax ki la jox nga mën a xalaat mën na la jox sa wërsëg lu tax ñu doye dal capacité yàlla bokk yi mooy suñu gëm-gëm dafa am problème yu désastreux kon dañu am problème yu sérieux est-ce que xam nañ ni li nga xamante ni tey danga ko gëm bëgg ko wóolu yàlla suñu borom xam ni yàlla gëm naa ni moom moom xéewal yi te wóolu naa ni sama xéewal dafa ma koy jox te gëm naa ni kenn mënul dox sama digganteeg loolu te man li ma moom yépp dama ciy jot te nga koy ñaan yàlla foo tollu est-ce que xam nga ni danga koy jot ndax yonent bi sallallahu li mu wax dafa leer bu ñu wóol woon yàlla comme picc ni mu wóoloo yàlla ci wërsëgam day xëy ventre vide ñibbisi ventre plein indaaleel sax njabootam lu mu lekk kon bu boobaa yàlla dinañu wërsëgal ba mu jéggi dayoo ba mu jéggi ñun sax suñu suñu suñu suñu capacité bi nga xamante ni moom lañuy xalaatee waaye malheureusement amuñu boobu kóolute ci yàlla moo tax yàlla seetaan ñu nag seetaan ñu bu baax sax kon bu ñu renouveler encore une fois suñu ngëm yàlla xam yàlla mooy kan ba mën a wóolu ko gëm ko delloo ko lépp li nga xam ne mooy li mu moom rek ñu gis suñu dund gi changé te ñu koy def benn benn dinañ gis ni secret amu ci il faut que ñu delluwaat ci mooy bay ga nan ngay bëggee yàlla wërsëgal la wala boog mu yaatal sa wërsëg bu dee yow fuñ la yaa ngi concentré wu ci aw ma liggéey wala sama liggéey bi neexuma aw ma xaalis aw ma lii munuma lii nan laa koy amee nan laay def ba lii parce que yow jàpp nga yow lépp sa bopp rek nga koy indiwaat. yow da nga ni dafa am ku lay jox danga nga fàtte dafa am ku lay wërsëgal da nga fàtte ni yàlla suñu borom loolu yëpp moo ko yor ci loxoom la nekk kon de de maanaam déchargé wul nga delloo ko yàlla moom mi nga xam ne moom moo lay jox nga may sa bopp jàmm te reconnaissant di ko sante xéewal yi mu la may. mais au lieu de loolu lan nga choisir da nga choisir toog di jàmbat di blâmer di jàmbat di blâmer man tey en tant que doomu aadama nga xam ni aw ma dara su ma la mayee dërëm nga ñëw di ma jàmbat naan ma dërëm laa am nga yaakaar naa la doon li ñaar dërëm du ma ko def parce que te nit rek laa pourtant su ma la mayee dërëm nga ñëw di ma sant ay sax Zahra merci beaucoup ay waaye dërëm bi ma may def naa ci lii def naa ci sama xol day sedd dama lay dooleel waaw parce que kon sagam ñun ñooy laaj reconnaissance ñun nit ñi tekkiwul dara kon ana suñu borom ana suñu boroom te yàlla suñu borom dafa chartante ak boppam que ni baqen bu mu dundal dana la wër sagal ñu gëm ko ñu bañ ko gëm ñu topp ko ñu bañ ko topp kon loolu moo ñu wan ne rek ñun suñu sànkute niveau bu mu toll dafa grave nañ jóg suñu bopp ndax nit ki boo jàppee nii sama dund bi lii awma lii nangama lii yàlla daf lay multiplier conteneur de problème nag di la seetaan di la seetaan waaw parce que boo jàppee ni yow focaliser wu ci li nga manqué wala li nga amul mooy tax mu changé mooy da ngay nax sa bopp te boobaa yàlla daf koy multiplier ba pare nag toog de la seetaan di xaar nga dellu siwaat ci moom sant ko ngir mën mu dooleel la tant que defoo ko sa dund gi ci xat-xat ngay dëkk ak coono àddina kon xamal ni lépp li nga am ci sa àddina mooy li nga gëm ne rek loolu nga mérito ndax nit boo ne ah man kay lii mérito wu ko man kay lii nangam sangam yàlla da dalay fekk si sa ñaan yaa ko ñaan yaa ko wax boo jàppee ni yow mënoo doon borom alal yàlla du def borom alal boo jàppee ni yow mënoo am lii ah lii de mënuma ko am doo ko mën a am buñ la nee changé nga ne ah man mënumaa changé ni laa mel sa changé ca ngay dee ndax yàlla neen du changé l'état d'une peuple tant bi décidé wul changé boppam boo toogee di jàmbat ne yow ci pauvreté ngay dee kañ ngay am nooy def ba am nangam sàngam di jàmbat yàlla ca loolu la lay bax di la seetaan ay yàlla mën a seetaan kon il faut que ñu delluwaat ginnaaw defaraat suñu mode de pensée positif gëm yàlla am yàqiin ba jusqu'à dernière minute ñu xam ni tànk ñu ngi tekki suñu yaakaar ci yàlla dana mel ni suñu maam Ibrahim keroog ba mu tëralee doomam fas yéene ko euh, rey dem ba dernière minute Jibril wàccee xar ci gaawaay bu toll ni melax ngir remplacer ko loolooy suñu maam Ibrahim yaakaaram tasul ca yàlla kon gëm yàlla rek moo am san moo am chance maanaam ki gëm yàlla moo am chance te gis nañ ay nit ñoo xam ne seen gëm yàlla yóbbu na leen ci ba ñu nekk ci situation mais taxul ñu xàddi ba dernière minute yàlla rek leen leen situation boobu te ñoom jàppoon nañ ni situation boobu dernière minute boobu moo nekkoon dernière chance kon nañu renouveler waat encore une fois suñu mode de tey da gis ñu bari nekk ci xéewalu yàlla di ko ŋàññ <laughs> ba ñàkk ko soog a xam ne am nañu xéewal ndeysaan li tax may retaan mooy dama ci gisoon benn cas boo xamante ni ku ma xam la daa amoon as toq oto su ndaw tey xas oto bi heure bu xëyee nag bu oto bi paane wala mu karaj karaj mu xas ko xas ko xas ko oto bi nangam oto bi sàngam jàmbat jàmbat jàmbat jàmbat ba oto ba fay xëy gaare ne du dem muy rey boppam di jël ci bus yi di wàcc di jël ci bus yi ba mu def une semaine mu ne ay waay moo ne sama oto bi de li ma ko doon xas yëpp amoon na fu mu ma féete <laughs> dama rey bay bëgg a <laughs> maanaam yàlla suñu borom des fois ni muy yaree jaamam da koy xalaat sa yare da lay jàpp parce que boo comprendre lu àddina da xam ni yàlla rek moo mën a yar jaam parce imaginel ki yoroon oto su ndaw di ko xas di ko xas di ko xas di ko xas ba oto ba yàqu mu xam ne ah ndekete oto bi amuloon na ma de c'est la nit dina nekk ak jabaram di ko xas di ko xas ba jabar ja dem mu xam ne ah ndekete jabar ja kat lu mu yées yées moo ko daan taajal añu midi moo ko daan fóotal di ko paaseel di ko kiwal tey bu ñëwee nekk célibataire war nara defaloo loolu boppam dina xam ne nag ak lu mu bon bon bon amoon na fu mu ko féetee de la façon dina am liggéey bu bon di ko xas. ba xëy xëy ñàkk liggéey ba yow liggéey bu doon sax salaire cinquante mille ko am léegi amatoo sax salaire <laughs> mille francs bay am cinquante mille tu es kon nañu apprécier déjà li fi nekk ak lu mu metti metti lu mu ñaaw ñaaw lu mu soof soof nañ ko apprécier nañ ko accueillir ci suñu xol nañu reconnaissant nañ ko sante yàlla ba pare yàlla soog ñu jox leneen ndax tey li nga am nii di ko xas nan la yàlla di joxe leneen te yow li nga am nii respecté woo ko pour nga am de plus foog nga respecter li nga yor ba pare foog nga bëgg ko fokk nga naw ko bu boobaa nag bu la yàlla wërsëgalee leneen nga bañ pour purux ne ko ah oto bii de ba ma nga xam ni moom daanaka lu yàlla xam doy na lu mu bon bon bon ah rendre na ma service de wax dëgg yàlla daana ma yombal euh, tukki beeg dem beeg dikk bi li muy tuuteeg li muy xat li muy ñaaw yépp noonu la amee woon njëriñ durant tout ce temps là ba yàlla indil ma nag Mercedes bu baax mbaa 4x4 bu baax mbaa mu ngi noonu parce que lépp rek reconnaissance dafa am solo mbokk yi mooy secret richesse dañu wax ni ñi bëgg alal ci xam ne la ñuy dëkk sant yàlla ak di reconnaître bien bienfaits yàlla day ubbi rek di yaatal di sa mbaxtal xéewalam ngay gën a yokk muy yokk dose ba keroog rek ngay ngay arrêté wala ngay dellu ginnaaw. ndaxte il faut que ñu xam ne suñu croyance yi mooy suñu kaso. tey dangay gis koo xamante ni foo ko fekk mu ngi xaalis amul barke loo am mu dem. loo am mu jeex du la fajal dara du la jëriñ dara yow sa giiru dund loo am mu dem loo am mu jeex te du bàtteel <laughs> parce que am na ñoo xam ni pourtant mën na am yaa leen ëppale et pourtant li ñuy am ñoom ñu ngi ciy faj seeni soxla te ñu ngi ciy dund ñu ngi ciy am li nga xam ne mooy li ñu bëgg kon lépp tamit day delluwaat ba ci yow sa jëm bopp relation bi nga xam ne moom nga am ak say croyance ci lu jëm ci xaalis wala wala alal. ñu jàll nag ci beneen étape. est-ce que di nga faral di taxaw ci seetu di xool sa bopp boo taxawee ci seetu yan xalaat mooy ñëw ci sa bopp xalaat yi façon yi façon xalaat di ñëw ci sa bopp nga koy xalaat ci saa si yooyu moo lay jural en général say blocage say problème ndax ay xalaat la yoo xamante ne daf fi yàgg a nekk te boo wéetee moom ngay xalaat boo taxawee ci kanamu seetu tamit moom ngay xalaat kon jaadu na de temps en temps nga jël sa seetu jàkkaarloog moom xool sa bopp mën a recueillir yi nga xamante ni mooy question wala boog affirmation yi nga xam ne mooy ñëw ci sa xel. kon mu gis ne tey dinga gis koo xamante ni tey bu taxawee ci seetu xool boppam peur yu bari mun na ñëw mun na nekk peuru relationnel mën na nekk manque de confiance mun na nekk ñàkk liggéey mën na nekk lu mu mën a doon waaye comme tey ñu ngi wax ci xéewal yi yàlla may. doomu aadama am ingratitude boo xam ne nangu koo reconnaître wala boog inconscient boo xamante ni tax na ñuy blâmer di rejeter di xas di weddi ba tax na yàlla daf ñuy xañ toog di ñu seetaan kon loolu peur yooyu tey jot nañu daal di koy defeer ku nekk ci ñun judd nga ci famille boo xamante ni seen rapport ak xaalis mën na sain comme mën na bañ a sain am na ñi nga xamante am na ci famille nga xamante ni presque dangay gis ni dañuy def ni ku amul xaalis tekk woo fa dara yow boo juddoo ci famille yooyu sa rapport ak xaalis du san lu tax du san mooy yow xam nga ni sa jëmm ji kase kase kase kenn du ko bëgg amoo benn importance kenn faalewu kenn yëgu kenn tinu la mais boo amee xaalis presque ñu teg la foo xamante ni dangay ngay tiit da yéemu ci sa bopp kon xale bi judd ci famille boobu. mënul am rapport ak xaalis bu am bu am solo wala bu baax du mën a bëgg xaalis parce que xaalis da koy da koy dégoûté ndax moom danaan xaalis moo waral nit ñi di am comportement bii kon kooku pour mu développer euh, am amam day jafe. di nga gis tamit beneen xeetu nit boo xamante ni par exemple dafa judd ci famille bu pauvre xëy na dafa nekkoon ak yaayam papaam gaañu wala mu nekk ak yaayam mu papaam euh, divorcé ak yaayam wala sax xëy na papaam ak mu nekk mais ñu am pauvreté bu grave. ba tax na tout le temps xëy na waajur yi mun nañ koy ne lu mu ñaan ñu ne ko ah amuñu ko ah lii dañ koo mën a am ah, lii mënuñu ko am on peut pas le permettre lii du suñu niveau xale bi bu dem bu xoolee dara sa yaay nag looy xool lii lii xam nga ni mënoo koo am lu tax nga koy xool donc day nit kii màgg ci loolu day dem ba day gëm nii day ancré ci moom que ni moom dara bu rafetee waru ko désirer parce que bu ko désirer am ginnaaw amu ko waru ko désirer ndax le fait que bu koy rek déjà day tooñ boppam wala boog day tas yaakaaram. le fait que muy gis lenn li mu gis ni amagu ko léegi waru cee mën a def xelam waaye waru ko mën a ut kon kooku encore une rapport am ak xaalis day xaw a doy waar loolu ndax dafay ragal sax bëgg loo xamante ni day xaw a sut tuuti capacité am te amu ko ndax gëmul ni moom war naa mën a liggéey war naa mën a ñafe pour atteindre loolu waaye nga gis famille yoo xamante ni seen rapport ak xaalis dafa doy waar ndax ay famille yu ñu xam ne dañuy exa maanaam dañuy def lu ñu mënul nekk ci excès dans le sens que tout le temps du ñu yamale seeni bëgg-bëgg dañuy bëgg wane benn dund paraître ci benn dund boo xamante ni daf leen di yóbbu à ce que ñuy nekk ay famille yu endetté wu di dund niveau de vie bu ëpp li nga xam ne mooy seen capacité financière loolu tey xale bi ci juddu. bu màggee day ragal day ragal bor day ragal sax dund dund gi nga xam ni mën na ko permettre boppam day suuraay lu bari loolu nekk situation boo xam ne tey ba tey mën na jural blocage psychologique xale yi koy dund kon mbokk yi audio bii nga xamante ni dañ ciy wax ci lépp lu jëm ci blocage psychologique yi nga xam ne mooy blocage yi ñuy empêcher ñu arrivé ci suñu fin ci suñu dund par rapport ak xéewal yu ñu yàlla may soo sont des yi nga xam ni yii àdduna bi en tant que média yeeg ak lépp li nga xam ne ñu moom lañuy déglu moo ñu koy créer lii suñu propre famille yii ñun suñu jëmu bopp selon li ñu transmettre ñun ñoo koy créer suñu bopp kon comme ni ñu leen ko joxee ci yenn ci solution yi ñu leen cofal dañuy yem a yéen fii rek fas yéene leen wax ni nañ ci bàyyi xel ñu def ci travail sur nous-mêmes suñu bopp même question yi nga xam ni posé nañ leen ko jéem a ut réponse yi nga xam ni mooy réponse yu ñu gis ni mooy yi ñu leen référé ngir lan ngir mën a améliorer suñu dund te xam ni comme ni ma leen koy waxee bu ñu changé suñu monde intérieur suñu monde extérieur lépp dafay daal di changé kon ñu daal di yem ak yéen fii di wax ba beneen yoon allah. ak seeni yeneen i vidéo bu leen fàtte abonné partager parce que gëm naa ni dina mën a jëriñ lu bari